jërë ngeen jëf mbokki Wassare Lamb ñoo ngi leen di nuyu di leen jaajëfal bu baax a baax di leen jox seen wàccuwaay tey nag ñoo ngi fii seet si ki nga xamante ni kilifa la ci Bawol kilifa la ci ki nga xamante mooy Tapha Tine mi doon bëgg ci digganteem ak Boy Niang muy suñ papa Bara tey ñoo seet si ko fi bëgg waxtaan ak moom ci làmb bëgg waxtaan ak moom ci combat bi démb ñu mu déroulé ndax kombaa bi kenn ku ne xam ne ne combat bi yàgg na parce que def na ñaari saison xale yi di waaj di jëm père naa la lay fay di nuyu waa yëpp. di nuyu waa wasaare yëpp. Ah, tey nag dafa nekk bés boo xamante ne nii daanaka làmb ji jeex na bésu sant la. Mm-hmm. Ah, ñu ngi sant bawol yëpp. ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci sangu bu sant sunu ñaari waajur. Mm-hmm. ñu ngi sant mbokki bawol yëpp supporters yi ak entraîneurs yi ak Sénégal yëpp. Mm-hmm. Ah, di santit ñi nga xamante nii nag dañu ci jàpp. parce que ku ci mel ni ministre Mor Ngom wax dëgg yàlla ku mat kilifa la mhm. parce que jàpp na ci combat bi digle na ay sarax génnee na xaalisam concentré woon na ci combat bi ba ni nuy bëree rek ba combat bi nu tafaa di segg mu ngi digle ay sarax man sax looloo tax demuma làmb ja te ku mel noonu nag wax dëgg yàlla nu ko war a jàppale ah di ci jiitalit sunu maire Jib Thiaw mhm. moom it wax dëgg yàlla génne na xaalis bu bëri jàppale Tapha Tine te looloo ko war parce que kuy jàppale moom ngay jàppale ak ku mel ni Mor Ngom ah seen Sène ku ne gis na ci taxawaayam jëne na xaalis bu bari def ci Assane Ndiaye lu ne def na ko ci ci sarax ak Fallou Ndiaye ak ñoo ñëpp wax dëgg yàlla te lépp bawal la leen ñor te dafa wone ne rek nit danga nga war a ànd ak sa say mbokk. Mhm. parce que ku xeeb sa mbokk mooy xeeb nga sa bopp. kon ñoo ñëpp dañu leen di gërëm ak entraîneur yi loolu laa amoon lu may ubbee. Ah, loolu nga amoon ak sunu màggit sunu xarit Daouda Diouf Daouda Sarr jàpp na ci bu baax a baax a baax parce que mooy sama kilifa mën naa ne mooy kilifa ak bawal man ndawam laa rek ci yëf yi. Hmm. waaw ok. ndawam laa ci yëf yi euh, ku ne gis ne Tapha Tine ni mu doon bëree ku ne gis ne ne Tapha Tine changé na lu bari démb bi ko nit ñu gisee. ndax gis nañ ko mu wàññi poids mais wàññi bi taxu mu demee noonu bi ñëpp nee Tapha Tine wàññi ba ñëpp d'accord biñ simee ko dañ ne est wàññeeku na démb bi mu ñëwee naka ngeen ko yabee avant mu jógee seen këram di jëm ci stade ba. waaw xam nga Youssou Ndour daa am wax bu mu wax. Mhm. nee na loo gën di màgg sa xel mel ni banque. Mhm. te loolu xam nga du waxu xele. déedéet parce que Tapha doon na tut gan ci làmb. Mhm. màgg na ci làmb. c'est que du question wàññi poids parce que Tapha bi mu jëlee komba bi daa taxaw ñu waxtaan mu ne day day voyager dem États-Unis ma ne ko combat bi du combat dem États-Unis mu wax ma pour lan ma ne ko combat bi bu dee musculation la am na fi. Mhm. te combat bi contact la ak physique. physique bu doy parce que ki ngay bëreet dafa gaaw te la mu lay utili la mu soxla mooy jéem la juumloo te fii nga war a toog. entraîner entraînement bu wóor contact lu bëri boo mënee contact un an sax nga contact ko ba sa mu yaram yëpp ñëw li nga bëgg a def nga def ko loolu rek moo la mën a génnee ci combat bi mais pas ay voyager di dem ak a dikk amul sens ci combat bi dañuy toog fii préparer combat bi yaakaar naa bi Tafa sumee ko. Mhm. ak bi booy ñaat dalee ci kawam. li mu sentir xam nga ne kii dafa liggéey doole pire joo xam ne du caaxaan te mbër saa yoo paree sa combat teg ko ci yoon. boo dikkee kenn du la ne defal lii sa yaram moo lay def loo yaakaar naa loolu moo tax mu dikkee noonu mais pas sax wàññi poids dafa liggéey rek boo yor doole piir li fa nekk nekk dëgg. Euh, dinaa dinaa dellusiwaat ginnaaw tuuti dinaa dellusiwaat ginnaaw tuuti dañoo gis ngeen daan ki nga xamante ni mooy Yékini Junior ngeen jóge fa jël ki nga xamante ni mooy Boy Niang est-ce que nekkoon risque ak lan moo leen dugal ci Boy Niang parce que Boy Niang ñëpp xam nañ ne xale la boo xamante ni nii mooy ah, moom yi yi mu bokkal làng ñëpp daan na leen daan na Garga Mbossé daan Sa Thiès daan Gouye Gui ngeen retourné waat jël ko est-ce que nekkoon risque. mais mais ay moroomam nga wax. Mhm. mais Boy ñaar Tapha Tine du moroomam. Tapha Tine du moroomam Boy sa moroom nag du ci at. Mhm. ci li mu doon moo ci jëf. Mhm. parce que Tapha moo ëpp Boy Niang doole moo ko loolaas ko dàq ko xeex ko bëre. te it boroom xam-xam yi ko wér. Mm-hmm. mën naa ne bu nu ëpp euh, waa Kër Boy Niang xam-xam waa Kër Boy Niang ëpp ñu leen xam-xam daanaka kon amul benn xel yaar boo xam ne mës naa ko am dut ci combat bi wala tafaatin di ko am dut parce que amul risque c'est que Boy Niang nag euh, champion la ku koy jël di nga jël sa metukaay te Boy Niang it man awma dara c'est que combat moo garaaw mais sama booy la bu bu yaru mm-hmm. bu ma gëm parce que it nag wax dëgg yàlla bu dul dara it papaam ah ku ne war naa mën a am yéene ci moom ci li mu coono gi mu daj ci làmb defar ay doomu jàmbur ba nu nekki sampion kon loolu la ko yàllay fay mm-hmm. te booy ñaa yaakaar naa nag daan tafaatin nekkul woon ni mooy objectif am ci làmb parce que làmb du benn combat xam nga yaakaar naa ne daan tafaatin nekkul objectif am nekkul ne ci làmb parce que làmb nekkul benn combat mm-hmm. làmb la mm-hmm. te booy ñaa xëj na yaakaar naa li kon ay objectif am yëpp entendre na ko parce que yaakaar naa tabaxal sa papa ak sa yaay ñu dëkk mhm. ah, nga am xaalis ci làmb ñëpp di la dégg ci làmb yaakaar naa loolu la soxla woon mais li ci des yëpp moom mënoo garante daan ñëpp nag da ngay daan ñi ñii daan la rek kon ñun wax dëgg yàlla ñu ngi koy encouragé parce que nag booy bu bu yaru la bu baax la papaam it nit ku baax la entraîneur am ku baax la l'essentiel que nag euh, entraîneur am euh, non ménageur am mais entraîneur am daa doon koo xamante nii ci làmb man gëmuma ko daal parce que entraîneur u mbër day teel meñam du nekk di war a rari ci stade li nga war a def doo nekk di ko wax parce que kera làmbu kewel bi bu ma doonoon keneen sax mën nañu jàppante parce que man del maa dik fekk ma toog entraîneur yaa nga nekk fale mhm. man du ma man président écrit la nekk président Bawol war na dik dil ma attaqué dañu lay daan xamu ngeen dara dugg na fii génn na fee ma ne ko sawaay li la reer ci làmb dafa dafa dafa dafa bëri te bu suuru combat ba di nga xam ne olof nee na lu la mën lu ne boo ko jiimalee xeeb sa bopp li ngeen xalaat ak lii am te li ngeen xalaat bés bu ngeen fa jaaree di ngeen xam ne foofu foofu lépp tëj nañu ko kon nit bu fekkee ni da yor mber danga nga war a dal doo nekk comme supporter da nga war a toog tee sa ay secret man ba muy wax daa am lu may jàng rek la may wax ak moom lépp am na lu may wut ci moom te man mënul xam ci man dara parce que man xëj na moom a màgg mais làmb li ma ci def ak fi ma ci jaar ak ni ma ko dund ak ni ma ko toppee moom toppeewu ko ni euh, ñu bari dañoo gisoon ne Tapha Tine combat bi bokkoon na ci combat bi nga xamante ni moo delloo ci làmb bokkoon na ci combat bi nga xamante ni moo koy génnee ci làmb su ma nee génnee ci làmb nag mooy maanaam euh, wàccee ko ba suuf suuf ba ñi ci kaw sox dootuñu bëgg a bëgg ak moom ba tax na dama gis xale yu bawol yëpp ñëpp mobiliser mbër bu ndaw mbër bu mag. ñëpp ñu ànd ak tafaatin di ko wane ne yaay ñu mag yaa ñu jiite te yaa ñu mën a xàllal yoon bi moom tamit mu topp seen mu topp seen gannaaw ñëpp man daal dama gis ne euh, ñoom ñëpp dañoo jëloon combat bi dañoo mel ni mbay guy moo jël combat dafa mel ni tafaale jël combat bi dafa mel ni njaaytina jël combat bi lan la woon. xam nga nga war a wax. Mhm. da nga war ne bépp bawol bawol mhm. ak bépp xeetu séeréer mhm. bés bi daa nekkoon seen bés booy ñaa xamul woon sax ci li mu dugg xeetu séeréer yëpp xam nga maanaam daa jël combat ba noppi xamul dayoo combat xamul dayoo bi ba noppi xeeb ñoom ñu xeeb combat bi xeeb ñi yor combat bi parce que pikin benn tiktikal la rek boo xam ne bu ndaw la te dañu ko bokk ak amaabal de bokk ak Tapha parce que Tapha buntu pikin yëpp bokk ak Eumeu Sène buntu Pikine yëpp la fa nekk waaw lépp bawal bawal yi la. Hmm. nekk ci seen biir nag xam leen bu baax. tafaatin am am am Pikine googu am Medina am Tëngéej am Siin am Saalum am bawal. parce que boo xoolee boo xoolee ci mikaayu Tapha gis nga ci mël un. Hmm. gis ci góor gi Senghor ñu fu nu dëkk du Soal. ak hmm. Palmarin lépp noonu la demee contact yeeg lépp mbëri séeréer yooyu dañu ci bokk. parce que démb daa am ñaar ñu ñu doon bëreet dañu doon bëreek séréer yi di bëreek bawal bawal yi. Euh, du ma la dog ba ma gis bi ngeen ñëwee Sianti ba Joal defe naa ni que père kii ngeen dal. Euh, Robert que Robert ngeen dal. voilà non parce que loolu moo war a am. Hmm. parce que séeréer mbokkam xam nga booy ñaar ñu ne mbëri géwél yi la. Hmm. waaye da xam ne séeréer yi. séeréer yaakaar naa jomam bëri na de. Hmm. géwél yi ëpp ñu leen jom de. te ëpp ñu leen bu ñuy geesu xam-xam. ak jom ak fula ak bëre yaakaar naa bu nu tegee ci séeréer yi la ko xam de te bu nuy wax it jom yaakaar naa lépp lu fi mës a metti di jar bàkkan rek bawal bawal yi la ko mës a jaral xeex boo mës a gis ci Sénégal boo xam ne nii maanaam bàkkan yu bari def ca wod da nga xam ne diggante Kajoor ak bawal génn ko mhm. kon nga xam ne tafaatin dem ni ñu koy yebbee ku dul woon Boy Niang sax mënoo daana amuma woon sax xel yaar ci combat bi yàlla xam na ne. léegi damay dugg si ci biir stade bi bu ñu dugg see ci biir stade bi ci wàllu mobilisation bu ñu duggee ñu ci bari yaakaaroon nañu ne Tapha du mobiliser noonu parce que su ma juumul côté bi yëpp Tapha Tine démb da koo te dañoo yaakaar ne bu ñëwee ci stade bi Boy Niang mooy moom stade bi. fuñ nee Boy Niang ñëpp yuuxu mais buñ nee Boy Niang mu yuuxu buñ nee Tapha Tine mu yuuxu mobilisation bi fan na jógee. mais mobilisation bi bawal bawal yi dañoo nekk fépp ci Sénégal. nekk ci ndagaaru fépp xam nga tey Pikine genn wal gi yëpp bawol bawol yi lañu te stade bi da leen a jege dañuy ñëw da nga xam ne bawol bawol yi ñoo nekk ci marché yi marché yi marché yëpp ñoo wer ndagaaru te bawol bawol yi ñoo fa nekk kon mën nga xam ne am na ñoo xamante ne nii bëreek ñoom mënoo leen a humilier ci supporter mhm. te boo xoolee booy ñaar supporter am moo mbër yu ndaw yeeg ñiy bëre yëpp ñoo bak benn côté Tapha Tine côté bi mu jël moom dong moo ko jël te feesal ko del kooku man mosuma ci xalaat parce que Bawol sans frontière dañu ci liggéey pour Bawol Bawol yi xam seen bopp. xam li ñu doon ci ndakaaru xam ne dañu war a ànd xam ne dañu war a toog concentré wu dépendre couleuru Bawol mhm. xam ne ñoo bokk jéblukaay moo bokk jéemukaay parce que day doon loo xamante ay nii day toll foo xamante ay nii nag Bawol day war a jël cëram parce que kenn ëppul leen doole ci réew mi kenn ëppul leen doole ci réew mi ci économie réew mi ak lépp ak lu mu mën a doon kon bu ñu toppee ci kenn nit kooku wax dëgg yàlla yàlla moo yor ndam waaye nag mobilisation nag war na ko mën a am. Mm. kooku moom aw ma si sax xalaat. léegi bi Tapha dugg see nu gis ko mu dugg si daw dugg ci digg géew bi. waaw teg cumbukaayam génneewaat ko. mais fa Tapha te samp cumbukaayam. waaw bi bi bi arène bi sosoo ba léegi kenn mësu faa teg cumbukaayam. waaw lan moo tax ñu sàqal leen fi ngeen teg seen cumbukaay ngeen wàcc ko fa. ñëw ci wetu plateau bi ne fa ngeen di taxaw te fa ngeen teg seen cumukaay. mberam làmb mberam làmb kenn mënu ko wutal cumukaay mberam làmb sëriñ bi rek moo ko mën a wutal cumukaay loolu ñuy def dañuy yàq làmb rek loolu mbër yu ndaw yi sax da koy def Alioune Seye Signor bi nu ko àndee moom mbay guy gi fi nu teg suñu cumukaay ñun ñun mbay guy gi mbër mu ndaw la mais dafa dem teg ca suñu ginnaaw bàyyi fa nu ko jox loolu bëri na fi Lac de Guiers Eumeu bi Eumeu Sène dikkee jël cumikaay Lac de Guiers bi Lac de Guiers jëlee cumikaayam Eumeu Sène daa dikk jël ci côtéem foo xam ne kenn mosu fi teg cumikaay loolu mbër yu mag yëpp la mbër mënoo koo sàkkal cumikaay ne ko fii ngay toog loolu mooy erreur bi xam nga ña doo non tey CNC bi ñoo xamante nii di taxaw naa la fee ngay taxaw wala fii te nu fi nga pare loolu mënul nekk loolu ay ci coow lay andi ci làmb rek mais ku ne ci na nanu fexe sécurité bi doy rek ku dikk sa sa cumikaay sarvice door bi seere la rek ba kenn du laal sa morom loolu mooy sens bi mais leneen lu ne lu ñu ci jéem a def ay coow la ñuy andi rek ak di fi yàq combat boo xamante ne nii waroon na mën a àgg di ci suspendre ay mbir yeneen parce que ñoom war nañu xam làmb war nañu xam réalité làmb kon yooyu ñoom waa dañoo war a veiller ci loolu bu baax xam ne dinañu ci yàq bes mais ñoom dañoo am euh, loo xam ne nii ñoom tànkal benn mbir ñëw rek yàq lamb duñu ci jël ay mesures mhm. te day am affaire boo xamante nii da ngay xool nag xam lii fa mu jëm nga teel koo nga teel koo mhm. loolu rek moo mën a nekk mais mbir du pare sa lam def ci millions yi du jeex ñu naa laa fii ngay toog ak fale ngay toog ak dugg na fii génn fale loolu mënu nekk mais ñu ñëw ci digg géew bi Tapha Tine simeeku ñu gis gàllaa ci bari lan moo waraloon loolu bés bi. non galaaj yi bari mooy say mbokk ku ne di jox la rek te ñëpp am yéene bu baaxut it yéene la am yàlla mën na ànd ak moom da ngay jël rek lépp da koy utiliser parce que làmb ak moo am. parce que ay mbokk la am ku ne da ngay dikk rek andi ne ko lii lii lii lii lay def lii lale lay def bu ko defee nga boole lépp bu dee téeméer xanaa dina am benn bu ci baax wala ñaar loolu rek xam nga nag lu mën a amit nit ki fi nuy xamee li muy def gëm na ko wala bëgg na ko mu respecte li li li mbir mi laaj mais doo négliger dara ak lu mu mën a doon même bu baaxu it di ko fonkee noo xamante ni dina xam ne kii fonk na boppam ki aussi nit la daal am na respect ci ci boppam daal. léegi abit bi laaj tafaatin pare nga laaj booy ñang ba xam pare nga abit bi sifflé. Ah. tafaatin wàcc ba tolloog booy ñang wala wàcc ba gën a gàtt booy ñang waaw dox ci kawam. lan moo waral loolu ñëpp xalaatoon ne Boy Niang abi day sifflé mu cokkaas Tapha Tine jumloo ko daw na coppe tànk bi. Tapha Tine wàcc ba tolloo ko mais mu la njëkk a bëre <laughs> doon séeréer làmbam di cosaanam làmb di cosaanam mu dekk bawal nga xam ne yow boo demee ci àll bi da ngay bëree. boo demee sàmmi da ngay bëre boo demee ca marché bi boo demee ngente da ngay bëre boo jëlee décision bëre nit waru la mën a juumloo nag. mais ñu ci bëri dañ ne Tapha dafa tële. Ah, waaw Tapha Tine dafa tële nanu xool rek ndax ñi mu daan yëpp kenn bokk na ceeg sa moroom jël. télé mooy lan télé mooy nga jàpp xamoo li ngay def waaye Tapha ku mu jàpp dina la ambale palaake la dóor ci suuf wala mu dëb la sol lalli la wer la ndombay bu di dóor ci suuf wala mu boot la dóor ci suuf wala mu kor la duma ba nga xool benn place. lan lan la tele. ku tele du arbitre du soufflé gars yi di ko daw de. mais démb la moo tax ngeen bëree noonu ak boo Niang ferme garde bi dox ci kawam. parce que ba ci saako yi. parce que dañu gone man dama gone ah. Mhm. gis nga Mor dem boo gisoon mu te gars mooy dire ko jàpp ba dëgër soog a bëre. sam sa tànk xam nga. sécuriser sa bopp ba noppi soog a bëree parce que waa ji day arrière ñu ngi la naa bu ko dàq mais dàq ak ay dàqam. Mhm. parce que boo ko bàyyee ci géew bi muy te di dem fu ne mën na la këf te yow doo ko yëg mën na la ak foo agut mais boo avancé ci kawam heure bu sesee ci saaku yi boo ko accéléré day ñëw wala mu génn for force te bu ñëwee nga jàpp ko parce que xam nga ne day ñëw fii mu toll. Mhm. mais bu ngeen nekkee ci géew bi du tourné doo xam heure bi muy ñëw parce que mën na yoot dikk boo boo jëlee say di son mu génnaat mën na yoot sax génn nga reppeelu wala mu sarale la mais da ngay avancé direct. bu sesee ci saaku yi nag nga tej ko ci enchaîné koy coup bu ko defee day génn wala mu ñëw boo ko toppee noonu lu mën a am dina taxaw bëre wala ñu disqualifié ko mu toogi nga dem ak sa victoire. mais dañoo gis saa bu ko soo toppee ba ci saako yi boo ñëw da ko jëm ay arrière gauche ay arrière gauche Tapha day aj garde bi mais ku yu ci bëri day dugg. Mm. Tapha Tine réagir lu tax loolu benn duggu si. dalu benn dalu si. parce que tafaa xam na loolu xam na ne ku yooyu muy door yëpp ngir bëgg a song la parce que xamal nañu ko ne mbër Mm-hmm. du question de lay door rek nga départ fay ji yow da ngay nat ba boo gis bunt nga door moom bu dooree yow war nga mën a jël ku sax pour jàpp pour du la perturber mm-hmm. da nga koy xool carrément parce que yooyu yëpp pour bëgg song la parce que xeex bi muy xeex benn loxo lay xeex parce que arrêt lay door te loolu xoos rek la la mën a def te attaque sax am na nooy tegee garde basse du la dal kon jarut ŋàddeku di door yow fexeel ba langaamu ko rek kor ko dina génn wala mu ñëw nga jàpp palaake door ci suuf loolu rek moo doonoon bëre bi amul rafetal amul dara parce que man li mujj a wax dama ko ne feesal nga koy def nu yàpp bi génnee rek baax na parce tey waroo daanu. feesal bukki maanaam noo ko daanee baax na. mooy nu yàpp bi génnee rek fu mu jaaree baax na amul amul rafetal amul dara parce que bu la daanee jàppal ne génn nga làmb ji te nekk champion. warula am ci yow dara komba bi tey combat fulla ak fayda la. ak nekk fa am ak dégg gëm ne combat bi yaa ko moom bañ xalaat ne moom war na ci mën a am dara wallahi wal azim barke alxuraan loolu laa ko wax moom laa ko mujjee wax ne ko ku la wax lu dul loolu dala nax tey it ba saal loo diggee moom la ko wax moom la ko entraîneur yi wax même ñiy def chronique si bi sax loolu la wax parce que xool nañu fi saal loo Bombardier mhm. xool fi Tafa Gueye Mor Fadam xool Tafa yi Mamad Ali mhm. waaw Mamad Ali dem na ba gars yi kenn mënatu ko ci daan ah Mor dem noonu te ñooñu xam nga ne soo loxo wexut woon ni taf ni tafaa wexe bu tafaa dikkee teg loolu boole daas ay loxoom gars yi dañu koy abal. mais ñu gis Boy ñaa génn benn yoon ñëw jël avertissement génn ñaar yoon jël avertissement génn ñetti yoon jël avertissement génn ñeent yoon ñëw jël avertissement Boy Niang bëgg a accélérer làmb ji ba tey Tapha Tine changé wul méthode. mais lu muy changé moom mooy génn man daal xam nga lan laa doon bañ tafaatin Tine ko. ba ma xum ñoo xam ne day triser parce que loolu moom nekkul fu la ci tafa. ay hmm. puusante moom war ko def ak booy ñaa mais nag nee nañu balaa nga balaa ngay rey kii nga gis ko moom mooy génn. Hmm. yaa koy génne. parce que yu bëri na ci ay gis naa ñoom euh, Kanji ak Abdou Tafa Kanji. xam hmm. nga dem tabax loxo bi andi kalang-kalang di jéem a salteel noonu mais loolu daanaka amul ci sens mënoon nanoo faju rek toog. parce que fa combat bi toll ku ne xam na la fa am. kon su ma déggee mooy damu booy ñaan bi dam bi. garaawut parce que hmm. lépp la rek day dam mais pas ñu koy médiatiser di film di dugal fu ne parce que loolu yëpp ku ne xam na ne ba lam amee ba léegi dégg nga olof naa mber du ñàkku lay mber bu daanoo du ñàkku lay hmm. ak loo mën a andi ku ne tabax na fi hmm. ku ne am nga sa médecin Mm-hmm. man maa ngooy ñaanal bu dee daa dam yàlla na sedd ak jàmm parce que ak uh, amut amut sens mais nag médiatiser bi ñuy jéem a def di def politique parce que ñoom dañoo assumer seeni responsabilité ne booy ñaa man Tapha Kandji carrément lu ne lal ma yuuxu ma ne ko yàlla baax na parce que xaj na yéen a xam lay xëy xew ëllëg mais kon nag bu ñu demee ba nu gàññe leen dañuy assumer seen responsabilité mais pas nga nekk fi nag di jéem a salteel di jéem a band ay loxo di dugal ci TikTok beeg yooyu amul solo mën nga faju te bañ ko mais génn gunu làmb ja sax di film di dugal ci ñoom doo nga fa nekk loolu amul sens mënoon nanoo bàyyi ba booy ñaa ñibi ku mel ni yow dem seeti ko fekk ñu ban loxom kooku mën nañu ci d'accord nekk lii lii la mais doo dem dem ci benn ruq band sa loxo xam nga dikk di film dikk di dugal fu ne parce que loolu it taxut teewut nit ñi dañoo seetaan lamb ji parce que même dam bu damee damewul këram ci combat bi la dame mhm. waajee ko dam ah, ñaata mber la fi nit daan dam ko bàyyi nañ ah Zos damm na fi guy gi waaw kooka sax defa tee ci loxo yi mais am na ñooñ dañu leen a daane ñu dam mhm. ba tàyyi am na ñooñ dañoo daan dam guy gi bi mu bëre rek basi ka moo daan waaye daa dam mhm. loola ci biir bëre bi la mais doonu ni daa andiwaale blessure bu doon da doon dema blessé dik dikk xëj nañu mën ne ndax mais biir làmb ji la. saltel bi daal mën na ñàkk. non mënul salte parce que Tapha Tine na wax lu leer Tapha Tine dalee guddi. Mhm. Ah? looy def booy ñaam mu ne dikk jaar ci kawam nappaaje ko dem sama yoon nappaaje kay xam nga ne loo ko def day damaatoo <laughs> ah te olof nee na kuyal ñaay bu ñëwee tib dégg mbot gen mbaa mu nappaaje ko mook band ba Tapha loolu la leen bëggoon a wax xam ne lu la mën lu ne boo ko jéem a lay xeeb sa bopp mm-hmm. bu dalee sa kaw da ngay sonal sa bopp rek da ngay gaañu te doo am ndam loolu nag du booy ñaa laa koy tontu mais daa am ñoo xam ne nii dañu doon wax lu ne ci combat bi mm-hmm. man ma noppi te booy ñaa nekk sama booy marus rus burxaan wat entraîneur am am ñoo xam ne dañuy nekk ci biir làngam lu ne ñu la koy wax dañu lay daan di la fekk ci biir stade bi sax di la jéem a perturber te man duma façon boobu man du ma werante ci làmb duma ma coow. Hmm. parce que Boy Niang au moins am na yar bu ma won te du ñàkk a am bu leer nañ ma xam ko mu doon ku ku ku ku yaru ku mën a bëree ku rafet xel ku nu yar mën a bëree mën na xeex mën na lépp. mais nag dèjà àndandoo da lay yàqal te doo ko xam parce que booy entraîné mbër da ngay téye sa làmmiñ ñun mënuñu woon a xàmmee ci ñun lu ñuy def ci àddina ñoom ñoo doon coow rek mais ñun la ñuy def dañuy liggéey boo géew ba ñu appliqué ko parce que duñu xale ci làmb mm. te làmmiñ wu rëy daanul mbër waaw te def ci bëri ci moom mu war ko xoolaat parce que am na ku ci bala gay yóbbu woon police ñu ne ko rap teñ ko booba la gëj a wax parce que mm. wax dafa war a rafet parce que fii kenn mënut kenn yàlla moo lay dimbali ci bés rek waaye da ngay daan ñii ñi daan la. man nag bu dee wax bu ñaaw moom nit du ko dege ci man te bu dee boo ñaay duma ko wax moom lu ma wax rek moom concerné wu ko. mais nag nit ki boo àndeek moom ah ne entraîneur am nga wala leneen am nga da nga war a am nekk responsabilité nekk nit correct bañ a wax waxu supporter parce que supporter moom la moom la yéen ñi war. parce que Boy Niang mook Tapha Tine Boy Niang ëpp Tapha doole sutu ko dàq ko bëre ëpp ko dara dañuy bëre rek yàlla suturaal kenn may ko ndam parce que mber sax dañ nga ko ëpp doole mu daan la mais nag di daan te tax te fek mënuloo ko mm-hmm. ah loolu day am mber juum loo na ponkol ba tay waaye nag day fekk ponkol ma jël tegut bëreem ci yoon gannaaw tafaatin Tine daan na Boy Niang te dañuy wax ci làmb euh, ku daan dem ku daanu xaar fan ngeen jëm. non ñun ñun ñun xam nga lan lañu. ñun kala molet lañu wiis bu ne lañu mën a wekki bu ndaw ak bu mag <laughs> ñun amuñu ku ñuy xalaat képp ku ci promoteur ñëw waxaleeg ñun fay nu lu ko lu nu jaral ñu bëreeg ñoom parce que ñun dépassé na nu nekk di tànni mber wala ñuy tànn kii wala ñuy tànn kale. amul benn kenn koo xamante ni nii calculer nañu ko ku promoteur fay lu nu jaral ñu bëreeg yow. combat jànk. du nu ci cité kenn. Hmm. combat jànk wala jël revanche wala may revanche man moo leen ci euh, gën lépp lépp lépp ku ci ku ci ñëw ñun xam nga boo gisee nit na kii laay jël ak kala moytu da ngay xel yaar. Hmm, hmm. mais ñun mën naa ne mën nga ne béy wu wàgga nu daw nu get get yi noonuy daw mhm. ñun ku ci ñëw rek ñun amul problème ñun wu nu benn mbëri ci mbëri yi ci kaw parce que dama gis kenn ëpput nu doole kenn dàqut noo xeex kenn ëpput nu ci dara dama gis euh, le premier janvier ci diggante Balla Gaye Bombardier. Balla Gaye daanoon na leen. ngeen daan Bombardier te ñoom ñaa ñoo jëflante. waaw dama xalaatoon Tapha dafay dugg foofu toog xaar wala dafay woo Siteu may ko may ko chance. non ñun lu tax ñuy xaar ko yor ñeenti combat ñun day bëgg a ñuy bëgg a bëre. day ràngale nit mbër yi rek di bëre ñun ñu toog di ko xaar. Balla Gaye kay nanu ko ñaanal ko mbaam yi mu génn ah, yàlla génne ko ceeg jàmm mu am si jàmm ñamuy bëre dit am jàmm ñun ñu toog. diggante bi bu nu gisee combat bare bu ñu taasoo it ñoom ñooñu ku ñu ci jox ñu bëre mais ciblé wu ñu kenn. léegi dafa am ñett ñu fi nekk. Euh, Siteu. Eumeu Sène. la de ñooñu ñëpp ñooñu ñëpp. waaye yow moom Siteu Siteu moom xam naa ne yow moom danga ko cee boole rek waaye mber la dugal leen ko ci rek garaawul. na ñëw mbër kenn du ko kenn du ko kii. kenn du ko bañ kenn du ko xeeb parce que mm. làmb yaatu na kenn xamul làmb fi muy mujje mm-hmm. mais boole ko ci rek na ñëw. na promoteur ñooñu bu leen tegaloon ñoom kan moo leen ñun kenn ñun kenn gënalut ci ku ñëw baax na. amul kenn kul nuy tànn ci làmb ji di la xool parce que kenn defu fi lu nu defut. aussi kenn mënut nu ci ragaluñu ci kenn te làmb li nu ci soxla woon mooy am nañu ko fex nañu ba bokk ci mbër yu mag yi. Mm-hmm. léegi lu ci des Tapha Tine doonatul mbër mu ndaw. dépassé na di tànn mbër wala nii moom day bëre rek pour am xaalis. Mm-hmm. ku nu ko fay xaalis bu ko jaar rek mu bëre yow. yow si tey ñooñu ngay wax ñoo nga foog ne dañu leen di bañ ñoo gën a yomb ñoom bu nuñ nangoo laa jël kay amul problème comme ne ngay nappaaje rek jàll boobu moo gën a yomb. Siteu bokk na ci mbéy yi gën a yomb. nappaaje waaw ñooñu tey bu nu la jëloon da nga leen di jël rek pare leen ko mbaa kalamte ko leen. da ngay dóor mu xalangu rek nga wëñeeku ñibbi walla nga poñe door ba mu xalangu wala nga jàpp bu di fàq ci suuf dem fi mu toll nii Siteu naqadi naa jëflanteel de. Siteu mbay guy gee ko man. Siteu. mbay guy gee ko man. mbay guy gee ngi dugg ci combat bu ne weng ci ngay wax waxi Siteu. Siteu mbayee ko man bokkut ak Tafa. waaye nag ñun moom comme mber la rek mber la day tàkk ngem licence bi ñoo ko bokk moom doo ko kii na ñëw rek. lan ngay wax ñi nga xamante ne ñoo lay seetaan ci Wassare Lamb ak lan ngay wax amateur ñu tàggatoo ba beneen. noo li ma leen di wax mooy maanaam rek di gërëm bawol yëpp parce que di gërëm amateur yi di gërëm bawol yëpp di gërëm it Assis Ndiaye. que nag sama xarit la wax dëgg yàlla nit ku baax la. te son na ci làmb ji. yor na produit am ah mu nekk ci làmb ji muy Sador nga baal ma wax dëgg parce lu ne fànn it su ko jiix. dikk làmb ju am mu dugal ci loxoom wax dëgg yàlla li mu def rafet la parce que teg làmb ba bàyyi sa naawle promoteur teg làmb ah nga dikk sponsorisé ko wax dëgg yàlla jàpp ci ba bés bi toll fi mu toll it am wax dëgg yàlla loolu it lu rafet la daal mu nekk nit ku baax kon ñu koy Sénégal gépp di ko ñaanal ah fi mu bëgg a ak produit am bi yàlla àggale ko fa di gërëm it sunu mbokk yëpp di gërëm sunu maire maireu Medina Bamba Fall parce que ci commune Medina la ñu dëkk moo nu jox école yu nuy entraîner te it wax dëgg yàlla jàppale na bawol bawol yi ci côté bu ne dañu koy sant di ko gërëm. waaw di gërëm Mbaye Ndewaan xam nga di gërëm Elas Thioune Elas Thioune ak Papa Thioune combat bi mën naa ne seen combat la parce que ñoo ci gën a parce que ñoo jàpp tafaatin mu metti bëriwut ñu jàpp ko tee ko yor ko seen kër añ reer ndekki dépasse xam nga location oto fay entraîneur kooku tey kuy gërëm rek ñoom nga war a gërëm parce que ay nit ñu baax lañu ay góor piir lañu boole son ci nag di yeewu quatre heures di ànd ak ñoom entraînement man maa ngi leen di gërëm ci turu Bawol gépp xamal leen ne bawol ak képp kuy séeréer ak képp kuy mbokku tafaatin mu ngi gërëm ñaar ñooñu parce que nit ñu baax lañu famille boobu waaw vraiment daal loolu moo nekkoon sunu sunu ay kàddu waaw di gërëm it sunu mbër parce que li nu ko waxoon lépp ci làmb ji def na ko teg na ko ci yoon am na yar am na teggin te sàggal na bawal gépp kon wax dëgg yàlla alhamdulilahi rabil alamin daal mbokk yi gis mbokk yi gis ngeen tey ñoo ngi session yi nga xamante ni mooy Papa Bada Dione waxtaan moom ci làmb ji kàddu yi ku ne dégg na ko kàddu yi rafet na sell na xanaa di ko jaajëfal euh, di ko gërëm di ko wax ne ñu koy ñaanalaat mu amaat combat xale yi nekk ci écurie bi ndax gis nañ booy yi euh, ni ñu la joxee cër ndax bi ñu woowee mbay guy gi dafa ne dem leen ci Papa Bada Dione kooku bi ngeen demee ci moom mel ni yegg ngeen ci tafaatin moom tamit ñu koy nuy bu baax a baax di la ñaanal gudd fan ak wérgu yaram di la bàyyi daal ñu tàggatoo ba beneen. jërëjëf kontaan nañ ci bu baax a baax. ñi lay demee ci wasaare làmb jàmmaarloo jaa ngeen jëf.